asalaamaaleykum mbokki Sénégal seen télévision Asfiyahi yi dalal na émission bu bees ma fas yéen ci ànd ak yéen ñu indiwaat taarixu Sénégal jaar-jaaru mag ñi moo xam magu politik moo xam magu diine moo xam magu euh, àddina waaye lépp ñu tudde ko nit ak jëfam jëfu doomu aadama bu sell bu baax bokk nañ ci tabax réew kon nag ñooñu seen jaar-jaar seen yëngu seenu dund ñu xool lan lañ ci mën a boole ak ñi nga xam ne tey ñoo safoo réew mi ñoo nekk ci réew mi ñu ànd mu nekk Sénégal bu baax bon nag maa ngi leen jox rendez-vous àll bu jot ci vingt et une heures allah ci seen télévision bii nga xamante ni mooy dundal diine mooy dundal taarix mooy dundal bokkoo ak jokkoo ci biir Sénégal mën ak yéen mu ngeen ko am ci support yi nga xamante ni moom la Asfiyahi yi am moo xam YouTube moo xam Facebook moo xam 3W point asfiyahi point org seen xarit seen soppe El Hadj Atoumane Ndiaye jëf bëkkëreek dara maan aram loo ku nga jaab njoogu faama bay ti laaj meesaaba asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi ñuy seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew te safoo afia yi nuyu naa leen am na mbégte dellu soit ak yéen ci seen plateau nit ak jëfam nit ak jëfam émission bi indi démb di ko booleek tey indi jaar-jaaru jamono jaar-jaaru nit ñi ba nga xamante ni loolu lépp buñ ko boolee dina nekk njëriñ li tabax réew mi tey nag ma dugg ci archive bi génne événement bu amoon boobaak léegi yàgg ya na trop ndax gàmmu Tiwaawoon la woon ci 1990 ah jamono Abdul Aziz Al Amin ci taar ca rafet wax ja ca rafet jikko ja nekk porte parole kër gi wara dalal corps diplomatique war dalal délégation bi nga xamante ne gouvernement bi moo ko yónnee woon te kii woon ministre de l'intérieur Fama Ibrahima Sagna jiite ko mu nekk waxtaan wu am solo te biir loolu am jangat ndax bu ngeen xoolee documentaire bi di ngeen gis ay nit ñoo xamante ni tey xëy na làqu nañu di ngeen gis jëmm yo xamante ba tey ñu ngi fi

kenn mënu ci delluwaat jëfam kenn mënu ci delluwaat taxaw na ëttu maamam taxaw na ëttu kër baayam taxaw na ëttu xadara Cheikh Ahmed Tidiane tabax taxaw na Tiwaawan ci lépp loo xamante ni dafa indi xorma ak rafetal yàlla ñu ko yàlla fayal ca barsàq yi nga xamante ni foofu la yéeg fekk fa ay maamam fekk fa ay baayam déglu leen waxtaan wi incha yaakaar naa ni am na njàngat te kenn ku ne dina ci jële njëriñ jotaayu Serigne Babacar Sy tooge fi jotaayu Cheikh Alhaji Omar Fouti radiallahu anhu tooge fi jotaayu Mouhamadul Ghali radiallahu anhu tooge fi jotaayu Seydi Cheikh Ahmed Tijani tooge fi jotaayu yonent bi euh, sikki nekkul ci ni ñii ma tudd moo leen fi toogal yéen ñépp ngeen di njabootam ñëw teew ci bés bu mag bii bés bu rafet bii ñu di ko wax rekk ni ci biir njabootam googu am na geneen njabootam goo xam ni tey ñoo fi teewal doomam di xaritam di njabootam di président de la république Abdou juuf ñu ko fi teewal tey nag kay jiitu ca bopp ba moo di sa doom di sa jarbaat di Famara Ibrahima Sagne mi ngi ànd ak mbokkam di sa doom di alsan jëli njaay di ministre bi nga xam ni moom la ñu dénk développement industriel mi ngi ànd ak sa doom di Assane Diop di ministre bi nga xam ni moom la ñu dénk lépp lu aju ci wér-gi-yaram ak lu aju ci mbiri njaboot gi mi ngi ànd ak sa doom itam di sa jarbaat di Moustapha Ka di ministre bi nga xam ni moom lañu dénk lépp lu aju ci suñu cosaan mu ngi ànd ak sa sët di sa doom di Abdoulaye Makhtar Diop mi nga xam ni moom lañu dénk ndaw ñi ak lépp luy tàggat yaram mi ngi ànd ak sa sët ba tey di sa doom di Papa Aliou Ndaw di vice-président de l'Assemblée nationale mi ngi ànd itam ak sa doom te yilif ñu ci biir région bi di Cheikh Sadibou juuf ñii ñooy ñooy délégation bi nga xam ni ñoo ànd ak monsieur le ministre de l'intérieur Fama Ibrahima Sagno ñëw toogal fi président de la république Seyyid Abdou Diouf ci wàllu ñi nga xam ni itam ñoo fi représenté biti réew di ambassadeurs yi ñu di la xam ne ambassadeur Gambie mi ngi fi teew ambassadeur Koweït mi ngi fi teew ambassadeur France mi ngi fi teew ambassadeuru Maroc mi ngi fi teew ambassadeur bu Palestine mi ngi fi teew ambassadeuru Guinée mi ngi fi teew ambassadeur bu Cameroun mi ngi fi ambassadeur Pays-Bas mi ngi fi teew ambassadeur bu Grande-Bretagne mi ngi fi teew ambassadeur Algérie mi ngi fi teew ambassadeur Turquie mi ngi fi teew ambassadeur Belgique mi fi teew Grand Serigne de Dakar. alxaaji Bachiru Diagne moom itam ñëw na teew ak délégation bi mu àndal tabaarakallaahu ci wàllu parti yi itam sa doom Mbay Ñang mi ngi teew ànd ak benn délégation sa doom dans Soko moom itam mi ngi teew ànd ak délégation Euh, sa doom Ousmane Ngom moom itam ak benn délégation Boubacar Sall ñu ngi teew tabarakallahu ñoo ñëpp ñu ngi fi ngir yàlla ak bés bi ngir yàlla ak sa jëmm ngir yàlla xam ne yaa woote te boo wootee ñëpp wuyu la ndax boo bu soxla rekk jóg nga amul benn sénégalais bu nekk ci Sénégal dib jullit walla mu nekk bañ nekk jullit xewle te gisu la kon boo xewlee ñëpp war a ñëw moo tax ñëpp ñëw nañu tabarkalla si ngir fekk si bis bi ak bokk ci yiw wi tabaarakallaahu ambassadeur Mali itam mi ngi teew euh, gannaaw loolu itam suñu député maire dëkk di sa doom di alxaaji Moustapha Niang moom itam mi ngi teew loolu lañu doon jottali di nuy ñépp nag di leen sargal di leen wax marhaban bikum fii bay na ixwatikum ñëw ngeen ci seen kër fekk fi seeni bokk fekk fi seen jur mu mel na nag am na lum ma waxoon waaye ma bëgg ko delloo bal bi ndax daf ma ni woon sama yaram mayuma ma mën a sànnenteeg nit ñi kàddu kon fafal sànnenteeg ñoom kàddu waaye ma bëgg ko ko delloo mu bëggal nu ci kàddoom <coughs> parce que kàddoom moo gën a neex ci ñun suukar moo gënu neex ci ñun lem moo gën a barkeel ci ñun zikar kon nag li muy yaramam di xawa a diis yëpp yal na woyof te yàlla bàyyi ko fi at yu yàgg-yàgg bokki jullit yi maa ngi def loo xam ne li ndigal moo tax ma def ko mu di wax gi nga xam ne gi sëriñ Abdul Aziz wax na ko waaye fa tabarakallahu ahsanul xaaliqina li mu wax rek doy na maa ngi àndandoo man mi di seen jaam di seen xaadim di seen bëkk nekk dale ci seen bàyyi Mouhamadul Habib sëriñ Moustapha sëriñ Mansour mi toog ci sama wet ak moom ak Cheikh na Tidiane bi fi nekkul ak moom sëriñ Abdoul Aziz bi doon wax léegi ak sëriñ Babacar Mouhamadul Mansour ak seen rakk mu di malik ak li ñu yilif góor ak jigéen ñun ñëpp ñu ngi àndandoo di leen ziyaar di santit sëriñ Abdoul Aziz fa tabaraka allahu axsanul xaaliqina arab yi dañu wax ne kër ka ko tabax jox ko mu dëkki ko ni daara baaniha baaniha wa aatil qawsa baariha moo tax ñu yëkkati mbir mi teg ko ci ndax fii mu àgg fa tabarakallah sunu xaaliqina su ma ko bëggoon nit mag gi ak wéradi gi duma ko may kon nag ñu ngi lay sant yàlla nga ñu yàgg taxawu ci mbir mu mel nii تبارك الله سبحانه خالقنا سي مك نك سي كانم سي رك توبي سي غناو غور اك جيجين دار باني دوخ سين ديغنت يالا كو يالا دي نيون كوي نيان ديف نكو ان شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى يستحي ان ينزع بركه من موضع قد جعلها فيه لولو سو تبارك الله ديف نكو غناو بو لولو نك نيغي نويو suñu jarbaat di suñu xarit di suñu soppe jëkk bi ko laata yàlla laata teg fii mu nekk ka cay seede gannaaw yàlla baada shahaadatillahi moo di suñu kilifa Cerno Ibrahima Marsasum moom moo xam li nekk sama diggante ak suñu jarbaat bii nga xam ne ñoo ko bokk seq ñu ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala responsabilité bi mu fab teg ko ci sa loxo yal na la tiim te bañu tegu ci sa bopp yal na la ko yàlla téyel biir ak bitti ba li ñuy tax ñu jox la ko ak li ñu bëgg nga redressé ko yal na la ko yàlla jubalal lépp lépp lépp ba Sénégal xam ne liñ la jox mat nga ko liñ la santoon it def nga ko ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa gannaaw loolu ñu ngi nuyu mbokk yëpp ak xarit rawati na nag ñi nga xam ne ñooy ñi mu àndandool te ñu di nawleem gunge ko ni ko sëriñ Abdul Aziz tudde kenn ku nekk ci tuuram ak santam maa la da cay nuyu doo fekk la arab ba waxoon rek moom a dal benn waay bu ñu wax xadaas dafa demoon ci àll ba di bi gàddu fetaram te ku mënoon a jam la code bière yi bari lool mu mu diir bay bëgg a teq rek beneen tëb mu ne bii la gën a duuf naa ko bàyyi ba yëpp dem loolu dafa mel ni moom dal ci mbooloo mi bi ma fi yooyu baag si fi fekk fii kilifa yu baax yi ku mel ne Bachirou Diagne Dakar Dakaru ak kilifa yi fi nekk ak Saad Soufara ak ku mel ne Cheikh Abdoul Mounaim ak jaliya bi nga xamne ne suñuy doom lañ di suñu xarit ak sufara yi al arab ak sufara yi ci dess nga xamne ci safir bu nek ci turam ak santam lima ci dal modi di takatharat dibaau ala xadaashin wala yadri xadaashu ma yasiidu هذا هو الذي أصابني في هذه الحفلة الدينية الإسلامية المحمدية التواونية المالكية التجانية yàlla ngeen ko yàgg woo ngeen yàgg ñu ci wuy si sëriñ Abdul Aziz yàgg ko doxal fa tabaarakallaahu ak rakkam yi mu mel nañu ko bëggee te it su neexee yàlla man sañuma dogu waaye maa ngi am yaakaar ne insha allahu yàlla danañu defar loolu yàlla na ko yàlla def ñu ngeen nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp di ñaanal adduna ñëpp di ñaan allahumma bi xaqi ismika al azimi al azam الذي إذا دعيت به أجبته وإذا استعنت به أعنته وإذا استفرجت به فرجته وإذا سئلت به أعطيته وإذا دعيت به أجبته أجبته نسألك اللهم بجاه أحب وأقرب خلقك إليك سيدنا محمد عليه واخوته افضل الصلاه وازكى السلام مادين اليك ايدي الدراعه ومتوكلين عليك لا على انفسنا ولا على غيرنا طالبين منك لا من غيرك راجين منك ان تفتح لنا ابواب الاجابه والقبول برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا مددنا اكف السول والضراعه والابتهال لا تردنا خائبين اللهم اتمم لنا الامنيات والامال واخر لنا الاجل ونسالك اللهم ان تجعلنا من اعظم عبادك عندك حظا ونصيبا في كل خير تقسمه في هذه السنه الجديده وشهورها وايامها ولياليها وببركه هذا الشهر المبارك وببركه هذا اليوم المبارك وفيما بعده من نور تهدي به او رحمه تنشرها او ضر تكشفه او ذنب تغفره أو, أو, أو, أو شدة تدفعها أو نقمة تصرفها أو معافاة تمن بها يا أرحم الراحمين اللهم ارفعنا ولا تضعنا وادفع عنا ولا تدفعنا وأعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وفرج همومنا وغمومنا بمحض الفضل والجود والكرم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ونسألك اللهم أن تحفنا بلطفك في الدنيا والآخرة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 بحق كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله وبحق قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح سر العالمين من العدم إلى الوجود وعلى آله وأصحابه صلاة تعدل عدد ضرب عدد تسبيح العوالم وبمحد الفضل والجود وكرمك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 وتناسب قدره ومقداره العظيم عندك تفتح لنا بها ابواب الرضا والخير والتيسير والتوفيق والقبول والسعاده والنجاح والفلاح بمحض الفضل والجود والكرم وتغلق بها عنا ابواب الشرور والمضره والهلاك والخسارة والندامة والضيق والفقر والتعسير والأمراض المخوفة الفتاكة ما نعلم منها وما لا نعلم ما تبرأ منها وما لا تبرأ ونعوذ بك اللهم من الوساوس والخواطر الشيطانية وسوء الظن بك وبعبادك والشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب والآثام والمعاصي المعوقة للعبد عن الوصول إلى مولاه والمرض والموت في السفر وأن تنجينا من قصر العمر وموت الفجأة وميتة السوء وسكتة القلب وسيء الأدواء والداء العضال بمحض الفضل والجود والجود والكرم يا من بيده التحريك والتسكين بحق وله ما سكن في الليل والنهار اللهم احفظ اللهم احفظ ما خلقت اللهم احفظ ما خلقت وبارك فيما سترت ولا تهتك ما سترت اللهم احفظ ما خلقت وبارك فيما سترت ولا تهتك ما سترت اللهم احفظ ما خلقت وبارك فيما سترت ولا تهتك ما سترت, ما سترت يا ارحم الراحمين يا رب العالمين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 ma Andat, Alassane ministre Alassane dialinjay ministre Assane Diop ministre Moustapha Ka ministre Abdoulaye Maktar Diop vice-président Assemblée nationale Papa Alundao, et gouverneur Cheikh sadi Boudjouf, pour que Besbi. ko ci comme nu mu ko baaxoo def at mu ne nee na suñu dikkee ñuy nuyu la nuyul ko njaboot ji ziyaare la sargal la ci bés bi te ñaanal la wér gu yaram ne bés bu mag bii muy bési mawlud bi mu ngi ñaan julliti Sénégal ku nekk jublu penku fas yéene julli ci xolom ñaanal la ndax yàlla may la wérgu yaram gudd fan te yàggal la ci kanami njaboot ji nee na su ma dikkee ma wax njabooti alaaji Malick góor ak jigéen tàmbali ci yow nga xam ni yaay xalifa bi ni xelam du jóg ci yéen musul jóg ci yéen noo leen ko jàppee ni mbokk noonu la leen jàppee ni mbokk ne ma wax la yow moo xam ni yaa jiite tarixa bi te ci jëf ak jikko nga fexe ba ñëpp nekk benn te ci jëf ak jikko nga fexe ba sénégalais yi bugga la ba pare gëm la nde nit danañ ko bugga te duñ ko gëm yow nag sénégalais yi dañ la bugg ba pare nijaay ñu gëm la te yow moo xam ne yaa am loolu ci may yàlla nee na sénégalais yi nañu xam ne yàlla sedd na leen nit koo xam ne war nañoo góorgóorlu di ko ñaanal ndax yàlla bàyyi ko fi ni mu gën a yàgg nee na su ma ñëwee loolu ma dëgëral ko njaboot ji wax ko mboolum jullit muy dund ci biir Sénégal ak bitim Sénégal ah su ma nijaay Thierno Omar Sassou moo tudd te muy sa xarit di sa kóllëre di suma mag yaay nee na ma benn bés jarbaat yàlla am na ñetti yëf yoo xam ne bu mu leen bindee ba pare dafa nattu doomi aadama nekkoo njëkk la seddu dafa xam ne doomi aadama dafa xër mu ne ko njëkk la seddu ma ne ko nijaay loolu mooy lan mu ne ma mooy jëf yéene ak dogal ma ne ko waaw loolu nag doomi aadama lu mu def mu ne ma doomi aadama ne yàlla man danaa jël yéene ak jëf yàlla ne ko kon nag man ma garder ndogal loolu moo tax doomi aadama yi di am yéene ju baax ak yéene ju bon jëf ju baax ak jëf ju bon Sénégal nag toll na foo xam ne képp koo xam ne yàlla def na la seetlu kaat war nga ràññee ne yéene yu bon yi ak jëf ju bon yi ñoo xaw a ëpp jëf ju baax ji ak yéene yu baax président nee na su ma njuwee ma ñaan la nga ñaanal sénégalais ndax seen xol wëlbatiku ñu dellusi si si ñoom seen bopp ak seen sago ndax ñu góor góorlu ba di yéeneente lu baax di jëfante lu baax ndax suñu réew mi gën a avancé président nee xam na ne loolu soo ko may ñaane yàlla mu may la ko nde yaa sa digganteek yàlla dox nga ko ba mu mat sëkk sa digganteeg doomi aadama yi dox nga ko ba mu mat sëkk loolu tax na ba lépp loo laal mu am barke fépp foo jublu jàmm jiitu la fa kon nag président nee na mu ngi lay ñaanal lépp loo doon def di ci ñaanal Sénégal ak ci wax diggante doomi aadama yi dëkk Sénégal nga yokk ko ndax jamono suppaleku ndax sénégalais yi seen xel dellu si si ñoom ñu góor góorgóorlu tabax seen réew liggéey seen réew ndax lu fi doon baax gën a baax ndax Sénégal nu mu meloon mu yàlla delloo si ko ah président nee na it su ma ñëwee ma wax njabooti alaaji malik ne yaakaar na leen ñoom it ci ñaan woowu nee na ma wax julliti Sénégal ne ñoom ñëpp tarixa bu mu punta doon mu ngi leen di ñaan ñoom it ñu bañ a fàtte ñaanal Sénégal ne Sénégal toll na foo xam ni ah lu fi xew léegi kenn miinu ko woon te war nañu ko mën a bàyyi gannaaw ...de continuer tabax suñu réew di liggéey ndax réew mi a Sénégal toll na foo xam ni ah war nañoo ndax histoire am ci diggante jullit yi doomi aadama mu may na la barke ak wërsëg nde fii ki suñu réew mii nit ñi dañoo faral di jaawaatle barke ak wërsëg wërsëg dafa gëlëm xamul fu muy dugg waaye barke moom xam na fu muy dugg ñaar ñaar ñi nag su leen yàlla boolee ki benn doomi aadama mu mel ni yow nga nekk suñu wet dañu war a jàpp ak fukki loxo président abdu Diouf nee na moo gouvernement am jàpp nañu la ak fukki loxo mu ngi ñaan waa Sénégal ñu jàppale ak fukki loxo suñu amoon ndokk suñu amoon fukki téeméer loxo it ñu jàppee la yooyu loxo gannaaw loolu président ab Diouf nee na nga ñaanal réew jullit yoo xam ne ñoo ñu ngi ci coono mel ni suñu mbokki Arabie Saoudite suñu mbokki Koweït nga xam ne ñu ngi ci coono nga ñaanal leen ndax eh, musiba bu leen musiba bu leen dal eh, yàlla teggi ko nde musiba boobu su lawee mën naa yegg si ci yeneen réew yu jullit te loolu du doon suñu jàmm kenn nee na su loolu weesoo e mu ngi lay ñaan nga ñaanal Sénégal ndax nawet bi gën a e, naat nda bekkoor sore réew mi ren mbéy mi barewul mais nee na xam na ne soo ñaanee lu tuuti lu ñu am dana am barke su barewulee yi te barke ba tey dana amal doomi aadama yi njëriñ nee na feebar yu sew yi dal xale yi e loolu it mu ngi lay ak doomi aadama yi mu ngi lay ñaanal mu ngi lay ñaan nga ñaanal njaboot ji e pour que feebar yu sew yooyu yàlla tegg leen ci seen kaw gouvernement bi nag président nee na Abdou Diouf nee lépp lu mu deful fii ci Tiwaawan daf ko mënut ne yéeneem mu ngi fii ci Tiwaawan jëfam mu ngi fii ci Tiwaawan lépp lu si tuuti ne nga xam ni yàlla yàlla moo ko tollul noonu nee na nga ñaanal ko nde lépp na ndax lépp loo xam ne ñu ngi koy def ci Tiwaawan yëkkati jëmale ko ci tiwaawan ak looy luy sa coobare ci tiwaawan yàlla dimbale ko pour que lu yéeneem mottili ko wasalaam déglu leen dégg nañu li nga wax bu baax dégg nañu ko xol man lima ma moo di garaat yi ngeen ma takkal yëpp yal na ko yàlla def mu di ñaan te nangu ko yal na ko yàlla def mu di ñaan te nangu ko bi jaahi sayidina muhammadin sallallahu alayhi du nu dañ mukk insha allahu taala di torox lu jëm ci suñu borom di ko jaarale fi ñu ko war a jaarale ñaanal senegal jàmm ju yaatu joo xam ne ji jàmm ji rek Sénégal dana lamb fépp ba koo xam ne kii noonu téléspectateurs yi lii leen la woon ci archive yenn say bu xol yi demee ba xaw a sori dangay indiwaat démb dina tax nit ci xamaat bu baax a baax lii feeñ seen yoon ndax 1990 ak léegi sori na lool yàgg na lool waaye lu ne aw na fi ndax moom mi doon dox porte nekkoon porte parole bi jóge na fi Dabaax bi nga xamante ne moo nekkoon xalif ba jóge na fi sëñ Mansour bi ngeen di gis ci biir jóge na fi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen àddina noonu lay doxee nañu rafetal nañu sàmmoonte ak li nga xamante ni moom mooy ponki li seen maam bàyyi woon mooy tegu ci saratal mustaqim dunde sunna ak sharia yaakaar na ni ba léegi kii nekk fi tey jii yàlla jox ko yan bi mooy sëñ Babacar Sy Mansour yal na yàlla yokk man-manam yokk kattanam jox ko wér yal na ko yàlla yeggale ba lépp li nga xamante ni naal na ko sumb na ci e, kër maamam gii yal na yàlla def ba lépp yegg ci mu fekke ko ñun ñëpp mu nekk suñu teraanga mu nekk suñu njëriñ mbokk téléspectateurs yi lii moo nekkoon lenn ci samay ay yu ma indi dugalal ko joxe ko mu nekk loo xamante ni la ci biir askan wi ci bi ci E télévision bi di Asfiya ci seen émission bi di nit ak jëfam ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di ñaanal réew mi jàmm di ko ñaanal kenn ku dëkk ci képp ku dëkk ci réew mi yal na yàlla tappe xol yi yal na yàlla defar nit ñi yal na yàlla defar jikko yi yal na yàlla teg ci yoonu siraatal mustaqim maa ngi leen ñaanal jàmm di ko ñaanal ñëpp benn yoon ci seen émission nit ak jëfam gannaaw loolu dañuy jublu ci <clears throat> fàttali rek ni woor waxtu wu jaam bi demee ba toll fii waxtu woo xamante ne jaam yi jaam yi dem nañu ba toll ci mujj koor gi li nga xam ne moom lañ leen di fàttali te moom la yonente bi daan fàttali alayhi salaatu wasalaam mooy muuru koor mi nga xam ne dafa war képp koo xam ne kii woor nga képp koo xam ne bi weer wi feeñ fekk na la yaa ngi dund moo xam wooroon nga walla wooruloo woon moo xam am nga walla amuloo man nga wala manuloo muuru war na la muurukoor koor moomu le dañu koy génne ci pepp yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu la yaxal ci téere nit dina dem ba toll foo xam ne mën nga bañ a am pepp su boobaa ngànt day daldi dikk wala nga tollu foo xam ne boo amoon peppit doo gis ku ko nangoo jël kenn du ko nangu su boobaa ngant dafay ñëw su ñaar yooyu li bi la la man ataa fi amrina haada ma laysa minhu fa huwa raddun li nga xam ne moom ma yebal ci yéen ma andi ko ne leen diine jaa ku fi andi lu woroo ak lii nga xam ne moom andi neen dañ koy sempi sànniwaat ko ko kon kenn ku ci nekk fekk tolluwoo ci ngànt na nga jàpp ne yàlla day wax ak yow yonent bi day wax ak yow ni mu kàllaf mu man nga mu kàllaf mi manul ataa julli sax dina dem ba foo xam ne dañ ko koy teggil mu kàllaf mi manul dina dem ba foo xam ne sax bu laabulee sax dina mën a julli julli gi baax dina mën a tëdd di julli tëdd di julli tëraay boo xam ne du sax jàng faatiya day mel ne xel mee nekk ci li muy jàng rek ba jékki-jékki rukkoo rukkoo boo xam ne day yëg ne mu ngi ci mu ngi sujjóot mu ngi sëlmal kooku ngant moo koy indi ngant sharia daf ko nangu ku nekkul nag ci ngànt da ngay jëfandikoo li nga xam ne ku man mu kallaf mu man loola lañ ko sant boo ko defulee atte sa bopp ci ngant ëllëg yàlla rekk mooy xam yàlla nañu yàlla boole dolli defal sutura muuru koor moomu la ñu fàttali ni pepp lay doon pepp mi nga xam ne moom la nit ñi doon dunde te li ñuy dunde ceeb la li muy tollool daanaka ñaari kilo lay tollool muy ñeenti mudd bi nga xam ne ku doon jotu bés bu nekk mudd booba ngay jotoo te jotu gi mooy ki dem ba mënatul woor walla ki nga xam ne dafa dem feebar a tax mënatul woor wala mage moo tax mënatul woor ñaari nit ñooñu la sare am may ne bu ñu demee ba toll ci weeru koor bis bu nit ñi woor ñoom nañu génne liibaru ceeb jox ko miskin bés bu nit ñi woor ñu génne liibaru ceeb joxe ko liibaru ceeb boobu bu ñu demee ba muuru koor mi yegg ci ñeentam mooy nekk muuru koor ñeenti liibar mooy nekk muuru koor ni ñu koy natte ci charia ci aada ci ni yonente bi waxee alayhi salaatu salaam ndax liibar amul woon booba jamono pot amul woon booba jamono na mu daan natte te ne bu ngeen ci tolloo natte leen ko nii loxo yooye yàlla mayoon saaba ya may ko yonente bi mu wone woon ci ni nga xam ne noonu lañuy ñuy natte muuru koor loxo yooyu ku ko yàlla may natte ko noonu ko yonente bi natte woon koor soo koy natt sa loxo sa ñaari loxo boole leen dugal ko ci ndab mi peppa mi nekk nga tibb ko na mu gën a mën a génnee lu bare mu bañ tàlli lool bu tàllee lool du génne lu bare boo ko tëjee lool du génnee lu bare noona muy génne nag nga def ko benn ñaar ñett ñeent jàppal ne benn bopp ngi noonu li loolu boo ko defee bu la neexee nag nga am noo natte pour yi ci des xaw gën a gaaw waaye loolu mooy benn bopp kenn ku ci nekk war nga ko mën defal sa bopp te itam sartu ñu ne góor a koy def walla xale du ko def jigéen mën na ko def xale mën na ko def mën nga am sa doom ci biir kër gi mu toll ne yow na ko xam nattal la muuru koor mi mën nga am soxna ci biir kër gi na xam ni ñu koy natte mën na la ko nattal mën nga dem ba la ngay ñëw fekk soxna si natt muru koor mi ba pare charia waxul ni góor boroom kër mu kàllaf moo war a natt muurukoor moom kenn soo xamee ne def nga ko yonent bi nee na am na ñoo xam ne boo leen ko joxee amuloo muuru koor te muuru koor mi jaamu yàlla la loolu moo tax ba ni ko charia tërale noonu lañ koy defee kenn ku ci nekk nee na bu ko jox koo xam ne bu doon dundal daf dundam daf la war ñaareel ba bu ko jox tam koo xam ni dafa am kàttan te nanguwul liggéey nee na kooku bu ko kenn jox muuru koor donte lay yalwaankat la nga xool ko gis ne mu ngi kàttanu liggéey te defu ko bu ko jox sa muuru koor yonent bee ko dindi nee na la tudfau li xaniyin wala li di mirratin qawiyin koo xam ne dafa am kenn du ko jox muuru koor loolu moo tax ba yenn yi ñuy def di ko yóbbu ci jàkk yi am na ci lu desee wóor tuuti danga ko yóbbu ci jàkk léeg-léeg am na jàkk yoo xam ne dañu dañ koy séddoo kii ñu yóbbul ko kii ñu yóbbul ko kii ñu yóbbul ko ñoo xam ne wóor na ni waruñu lekk muuru koor waaye bakkenu doom aadama dafa doy waar ci am am su ko defee yow jafewul nit ki xam ni kii miskin la dinaa ko jox sama muuru koor kële miskin la dinaa ko jox sama muuru kii miskin la dinaa ko jox sama muuru koor jaamu yàlla la te yonent bi alayhi salaatu wasalaam feeñal na fenn ci hadis nee na assawmu muallaqun na sama wal ard laa yurfau xata tutfa zakatul fitri koor dañu koy acc bu ñu wooree ba pare koor yi bu ñu génnee dafa am fu ñu leen di teg ci diggante asamaan ak suuf dañu leen fay téye ku ku génnee sa muuru koor dem ku génnee sa muuru koor sa koor dem ku génnee sa muuru koor jox ko koo ko warul jox sa koor daf fay toog ki nga xam ne dafay génnee muuru koor warul am xarma yàlla di am lewet walla di am maslaa gu muy def ba joxe ko fu mu ko warul joxe képp koo xam ne boo ko yóbboo dinga ko jox miskin mi nga xam ne moo ko yeyoo bu la neexee nga jël fukki muuru koor jox ko miskin mu dem ak moom ngeen ñu bañ ko fejat seyna omar ibnu na wax ne bu leen fejat muuru koor yi jàpp ko tibb ko ku nekk nga as compa jox ko miskin yi topp sa buntu kër di wër bala ñuy matal dara son ñoom ñépp nee loolu bu ko kenn def ndax tuyaaba nekku ci kenn ku ci nekk seet leen loo am boo amee fukki muuru koor wala juróomi muuru koor bu la neexee jox ko benn miskin ndem wóor na la ne miskin mu ko yeyoo la charia limité wu ko fenn pour ne bu kenn jox lu ëpp ñaar bu kenn jox lu ëpp juróomi mu muuru koor benn miskin <clears throat> joxe bi itam yonente bi alayhi salaam nee na waxtu woo xamante ne yëg ngeen ni weer wi feeñ na nee na fexe leen ba bala ngeen di xëy di julli ji ngeen joxe muuru koor yi muuru koor yi nañu tegu ci loxo ñi ko yeyoo loolu dafa indi kon wareefu farlu goo xam ne kenn ku ci nekk war nga fexe ba waajal sa muuru koor ci ngoon gi bu ko defee waxtu woo xamante ne nee nañu weer wi feeñ na nga daal di yeble yeble gi tam boo ko bëggee yóbbu foo xam ne day sore jombul lee mën na am waxtu julli ji jot te joxe woo ko taamu googule dara jaru ko tam gis gis miskin mu yeyoo muuru koor jafewul fenn fu fi waay nekk muuru nit a nga fa pot yooyu ñuy natte nag pot yi dafa dese wóor ndax ñetti xeeti pot dañu am yoo xam ni bokkuñu àtte yenn yi dañ ci kafaara ku rey nit walla kafaara ku ku nirale soxnaam wala kafaara koo xam ne kii kafaara gu mag mag la nga xam ni ñaari weeri koor moom lay tollool te yooyu amu ci benn boo xam ne pot ba potu muuru koor la loolu moo tax kon delluwaat ci sunnu yonent bi jël loxo yi dafa gën a gaaw gën a wóorati ndax pot bi ki ko moom xamul sax pot bi lan la jombul rek ni ko mag ñi daan amee dañ daan dem màkk gis ko rek jënd ko andi ko nga ñëw ñu ne mu nga fële kële am na ko bàyyi diw am na ko diw am na ko boo ko soxlaa dem ñu ne la dañ ko yóbbu dafa am ñu ko fi àbbasi nga soxla nga dem foofa ñu ne la am na ku ko fi jël si nga teg sa muuru koor yaa ngi di waaj a xëtt sart te yonente bi nee na bu mu bu mu dem bul dem mukk jullikaay ba te joxe woo ko loolu kon day delloowaat nit ñi ci ñu natt muuru koor yi ak seen loxo loxo bi moo gën a fop amul lu mu yemal ndax moom la yonente bi wax alayhi salaatu wasalaam yal nañu yàlla boole dolli defal sutura yal nañu yàlla sàmm te may ñu itam ñu gëm te topp sunnu yonente bi alayhi salaatu wasalaam weeru koor wi nag jeex na li ci war jaam yi mooy ñu génn seen muuru koor génn ko lu jiitu ñuy ñëw ci jullukaay bi ngir jox ko ñu néew doole fegal leen ñuy waraalu ci mbedd mi weeru koor wi kenn ku nekk xam na ne war na génne muuru koor moom war na ko génne génneel ko njabootam képp ku aju ci moom te mu wër ko dundal na génneel ko ku weeru koor suñu dajalee loolu nag ñu jox ko ñi nga xam ne ñoo ko yeyoo du ñu dañ di wax loolu nañ ko jox ñi koy yeyoo jaami yàlla yi nga xam ne ñu ngi ci suñu wet ñu dëkk ak ñoom ci biir quartier yi kenn ku nekk buntu kër ba mu dëkk ñëkk sës xam nañ ndax am nañ lu ñu lekk xam na ndax amuñu lu ñu lekk su ko defee soxlawul muy gàddu ne mankaay yóbbu sa jàkka ja ilimaan ji moom a doon naafilaal sama muru koor moom laa koy jox dëgg la amoon na jamono looloo nekkoon booba ràññee amul waaye ràññee am na nañu jël mburu koor yi jox ko ñi koy yeyoo ñu bañ ko jox ilimaan yi ñu def ko ci ay saaku dëj tëj ko ci pantre yi bu nu ko def jaaduwul jëwul nañu ko jox seeni borom te it looloo war a am suñu ko deful it ñu ngay yàq suñuy jëfandiku وصليا يا إلهي وجيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم وصليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدنا مختار في القدم وصليا يا إلهي وجيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم وصليا يا إلهي وجيا أبدا عنا محمدنا مختار في القدم وصليا يا إلهي وجيا أبدا عنا محمدا المختار في القدم وصليا يا إلهي وجيا أبدا